dugal dugal dugal Moustapha ngi ci biir sa yoon new ci leen ñi kii filmé na ba pare moo tax mu nekk fële grand jar jar may ko mu jàll salaamaaleykum. maaleykum salaam. donc c'est voilà donc c'est Babouka le président de l'amicale des étudiants de l'ESEA donc aujourd'hui vers 5 du matin comme li ngeen di gis nii moo fi xew donc une étudiante moo dugg fii di sangu vers 5 heures du matin. vers 5 heures du matin oui après bu mu génnee ay 2 minutes ci la affaire bi daanu et c'est pas c'est pas une première fois yàgg na ci école bi. dem ba l'autre bâtiment 2019 même chose amoon na fa ci même toilette bi donc tey li moo fi xew vers 5 heures du matin et heureusement amul perte humaine parce que fekkul fii kenn ci biir mais deux minutes après sa sortie la lii xew voilà. donc amul euh, gaañu gaañu. non heureusement ba amul ci. situation bi nag ngeen koy dundee. situation bi bon métti na mais aussi lépp ci responsabilité kur la et peut-être je bu vous faire voilà. daaw bi ñu tëj école bi. COUD dafa ñëw ne ba quatre bâtiment yi mel nii yëpp dañoo màgget da leen di tëj jël étudiant ENEA yëpp yóbbu leen ñu dëkk université ci nouveau logement am saa yi étudiant yëpp étudiant yëpp d' accord yaa ngi dégg yaa ngi dégg étudiant yëpp d' accord bi tu étudiant yëpp d' accordee lañu ñëw ren parce que ENEA chaque année le 15 février la ñuy tijji ENEA chaque année le 15 février la ñuy tijji mais cette cette année ci vu le contexte parce que dañoo formé mars bi ñu ñëwee à notre grande surprise campus social on a vu que tout, toutes les autres écoles et facultés étaient en train de regagner leur leur leur leur leur logement leur chambre ñun ñu ñëw gisee kut mënuñu finalement logement yi ñu leen waxoon daaw dañuy continuer tëj bâtiment yi mais logement yi ñu leen waxoon duñu leen ko jox donc les étudiants de l'ESIA en ce moment là se retrouvaient sans abri ñu décrété mot d'ordre dem grève c'était le 22 mars 22 mars ñu grève un mois ñu ñu organiser point de presse directeur du COUD ak CSA gis point de presse bi muy circuler ñu wooñu mais xam nga rek ay autorité man yaakaar naa lépp lu ñu wax dañ koy tenir ñu toog ñoom point de presse ñu ne ñu dinañ leen tijji ñaari bâtiment yii puisque travaux yi commencé ko dinañ tijji ñaari bâtiment yi réfectionné ko ba mu dëgër ba nga xam ne di ngeen a dëkk ren le reste ci moitié bi ñi waroon dëkk UCAD ñi reste dañ leen yóbbu UCAD jox nouveau nouveau yi dugal leen foofu noonu ba fi may waxe yow ni y'a 90 étudiants de l'ESEA yoo xamante ba léegi nag li gën a garaaw mooy ñi nga ñoom ñoo wax ne ñi nga xam ne ñoom ñoo dëkkoon fii ñu tijji leen ñaari bâtiment yi fii ay jigéen lañ fi dugaloon ñoom ñoo dëkkoon fii nii ay réfection lañ ñu waxoon tijji nañ bâtiment yi vous pouvez vous pouvez voir les les comment les fichiers réfectionné fi dara réfectionné wuñ fi lii ni nii signalé woon nañu ko mais xam nga ñoom ils sont au courant de léegi la fi quitté matul 30 minutes léegi la fi quitté le CSA du coup euh, directeur magasin il au courant d'ailleurs même proposition bi si moom la jógee parce que bañ ñoo yóbbu grand campus logement accord bi ñu amoon daaw bañ ko respecté moo tax mu proposé ñu tijji ñaari bâtiment yi nii donc lii amul dara loo xamante ni responsable étudiant la ñoom ñoo ñu lii et que l'année bi nga xamante ne ñoom les bâtiment euh, état bu mu nekkoon baaxul étudiants yi dañoo d'accord ne d'accord dañuy tëj bâtiment yi génn mais école tijji accords yi respecté wuñ ci dara peut du ma am fii temps wala leen yi mais maa ANIA e depuis le 15 février presque 3 mois de cours raté actuellement te fii nekkul n'importe quelle école actuellement waroon na fekk ñu terminer euh, comment dire une partie de notre cours comment pour dem sur le terrain commencer suñu stage parce que ici on réalise des PDC des plans de développement communal des plans de développement école mais 15 mois yoo xamante ni 15 mois yoo xamante ni 15 mois defuñu dara parce que lan problème problème des problèmes sociaux xam du jeex côté ñoo ngi gérer ñoo ngi jàng. mais coûte accompagne ñu ci dara et ça depuis l' intégration de l'ESEA au niveau de l'université depuis depuis 2009 problème yi moo fi am donc euh, voilà doo comprendre donc CESA ku léegi la fi jógee Maguette Sène il est au courant tout le monde est au courant et que li ngeen di fekkee fii sànq nii c'est la deuxième fois agent sécurité j'ose même dire les nervis les nervis cour yi ngeen gis nii ils ont blessé un étudiant ils ont blessé un étudiant ils ont blessé un étudiant parce wane lii wax mu jox leen ne yéen bu leen dugg bu leen yegsi ñu ne par force di dugg te c'est deuxième fois parce que la première fois bi c'était man ak PCS bii ak sama président commission relations extérieures les autres étudiants gi nga les étudiants de l'ESA n'ont jamais été violents mais tamit pas parce que nous avons peur mais nous nous avons toujours opté d'être responsables vous comprenez donc première fois bi ñëw nañ parce que joxuñu logement ñu ne leen kon du ngeen commencé seen travaux yi ngeen war def fii nii c'est ça fi ay agent ñu ñëw fii attaqué ñu j'ai les vidéos donc tey mooy deuxième fois mais voilà puisque le nombre est un peu euh, comment le l'effectif significatif moo tax tey avec l'appui des étudiants et tout ñi mën leen a dugal fii ngeen ngeen ngeen ngeen ngeen ngeen vérifier noonu la demee maa ngi tudd président bu ENEA donc jiite étudiants ENEA yi fi nekk yëpp te ñoo leen woon woon pour ngeen constater lii am ci li xew mooy c'est un problème ancien comment dire c'est une histoire ancienne mais ce qui s'est passé aujourd'hui ba ñu woo leen mooy benn xale bu jigéen moo dugg ci toilette bi di ci sangu mu génne juste quelques minutes après affaire bi wàcc noonu comme ni ngeen ko gisee donc mu nekk situation boo xamante ni c'est pas c'est pas une première fois ici à l'EDEA et à chaque fois suñu kaasee ñu benn solution boo xamante ni lu concret la duñ ko jël li ñuy def mooy ñëw laal ciment tuuti peinturaat démantelé yoon tout en sachant que à tout moment dara mën na wàccaat et que li ñuy wax tey mooy heureusement ba dalu ci kaw kenn mais même en 2019 bi mu fi xewee ci kaw benn femme de bu nekkoon ci bâtiment bi la daloon donc c'était pas une première fois ici à l'ETA et tout ça parce que dafa am loo xam ne moo fi jaar moo waral lii lépp yu màgget yàgg na fi l' année dernière bi fi nekkoon dafa trouver ay comment dirais benn consensus ay accord avec le groupe comme quoi dañuy former quatre bati dañuy fermer quatre bâtiments yi fi nekk yëpp su ñu ko fermé nombre bi fi dëkkoon environ c' était cent quatre vingt étudiants ñu ne cent quatre vingt étudiants yooyu dañu leen di jël yóbbu leen université grand campus dugal leen ci nouveau bâtiment yi am saa tabax foofu noonu peut-être yéen ñuy fréquenté xam ngeen bâtiment que dafa am benn am saa même a commencer ses travaux ici dafa war a commencer travaux tabax même batiment yi mu yi mu tabax université fii nii bu comprenez donc travaux yi noonu commencé wul ko travaux yi noonu commencé wul ko ba ren école tijji mu ne non seulement travaux yi commencé gul mais day continuer fermer bâtiment yi te aussi du ñu jox logement université étudiants NIA yi se retrouve sans abri c'était le 22 mars parce que campus social mu ngi tijjoon suñu le le 21 mars donc le 22 mars on s'est retrouvé ici amuñu logement amuñu dara suñu valise yëpp nekk ci biti comme ni ngeen ko gisee tey nii ñu discuter def assemblée générale décréter mot d'ordre grève bi ñu demee grève on un mois sans faire cours jour bi ñu décidé def point de presse peut-être certains d'entre vous ont été ñu décidé def point de presse dañ ko reporter parce que lan bi ñu dem bi ñu suba la le directeur du COUD moo ñu woo waxtaan ak ñun parce que euh, ñu toogee moom waxtaan consensus bi ñu amoon mooy une partie cent quatre-vingts étudiants yi waroon dëkk ci comment dirais je UCAD quatre-vingt-dix yi dañuy des fii 45 ci bâtiment B 45 ci bâtiment bi parce que bâtiment yi en moyenne 45 lay jël maintenant les 90 yi restent dañu leen université jox foofu noonu ci niveau bâtiment yi toujours maintenant 45 yi desoon fii nii nii fii ay jigéen ñoo fi dëkkoon l'autre ay góor ñu ne ñu dañu koy réfectionner de telle sorte que dina dëgër ba ngeen mën fi dëkk ren ba et loolu moo nekk conséquence yi moo nekk lii nii réflexion la waxoon boo xamante ni dina ko mën a tenir ba ñu jàng ba école tëj ñu génn bâtiment yi vous pouvez nga xam ne jot nañoo vérifier l'autre bâtiment réfectionné wuñu te foofu l'autre bâtiment dafa wàccoon comme ni fii wàccee même pas de cela ay quelques mois foofu au lieu weñ lañ jël teglante ay ay voilà ay bois jël weñ sukkandiku noonu loolu mooy réflexion bi donc mu nekk problème logement yoo xam ne étudiants NIA daw di ci daw di ci daw depuis des années et à chaque fois non seulement ku du ko réglé mais day ñëw di daane yeneen di ci doole day daane du la jox foo dëkk di daane du la jox foo dëkk maanaam ñaari bâtiment yi suñ ko suñ ko suñ ko éliminé mooy nekk sixième pavillon sixième pavillon yoo xamante ni ENEA euh, tëj nañ ko wala yi daane nañ ko te joxuñu fu ñu dëkk parce que six pavillon la woon deux yi ñu daane ko en 2019 cas yi moo nekk ni ñu ne dañ koy tëj non seulement dañ koy tëj mais duñ ñu jox logement loolu moo waral problème bii ngeen di gis problème bi yàgg na parce que ren bi ñuy tijji waa COUD li ñu waxoon mooy ay amicale yu bëri jàll nañ fii mais nanguwuñu nangu ñu woon seede pour ñu tëj bâtiment yi lu tax parce que les amicales avaient toujours peur que pour su tëjee bâtiment yi du leen jox feneen fu ñu dëkk et effectivement histoire tey jox na leen raison amicale daa bi peut-être avec peut-être yenn preuve yu ko kut wala ak yenn kii bi mu am si ñoom euh, confiance moo respecté woon accords yii nii et que malheureusement pour nous tey ku ñëw ba dernière minute respecté wu ci dara joxul kenn logement. Ah, alors actuellement comme ni ngeen ko gisee nous sommes sans abri maintenant li mënul continuer parce que comme ni ma ko waxee sànq ENEA nekkul école bu war a toog une journée sans faire cours et là nous nous nous comment dire nous trois mois sans faire cours parce que naturellement chaque année ñu xam ban ban jour la ñuy tibbi le 15 février. Mm. ENEA tey lañ nekk la la ñoo ngi ci ñoo ngi 2 mai ça c'est combien mois de perte. combien de mois yoo xam ne defuñu cours et actuellement actuellement période bi ngeen ñëw ni dafa waroon fekk étudiants ENA yëpp nekk sur le terrain di def ay stage ñii dañuy def ay études socio-économiques dans les différents villages ñii di def ay di réaliser ay PDC dans les différentes communes ñii di réaliser ay PDD dans les différents départements et c'est des documents phares ay documents de planification yoo xamante réew mu bëgg a développer mënu ko ñàkk message bi ñu lancé autorité yi c'est à régler même si depuis fort longtemps COUD mu ngi ci teg ay tànkam gëmm ay bëtam comme si que lii mënu ko régler l'ETA l'effectif n'est pas du tout euh, significatif bëri wuñu yaa ngi dégg te logement yi ñi mu concerné c'est cent quatre-vingts étudiants la moitié fi ñu dëkk bâtiment yi c'est pas encore comment dire par les démolitions donc 180 étudiants yooyu noonu fu ñu trouver logement loolu météo et je rappelle que daaw bi li xewee dañoo ànd ak autorité yi ñu dem ñu visiter anciens locaux UAM au niveau des de liberté 6 bi ñu ne foofu la ñuy jëlal jox ko li ñu leen fay par comment dirais li ñu waroon a fay par mois xaw a ak ñoom et les autorités du coup elles-mêmes ñoom ñoo toog ñu xalaat ñu ne pourquoi pas ñu yóbbu leen ci nouveau bâtiment yu am saa tabax ñu ko ñëpp magnifié ko rafetlu ko tey ñu ñëw ba ba dernière minute ne tey duñu ci respecté dara ba loolu moo tax ñu ñu retourné waat ci bâtiment yi nii maanaam kon ñàkk respect accord moo tax ñoom ñàkk respect accord yooyu noonu moo tax tey ñoom ñu indiwaat ñi ci bâtiment yi dugal ñu ba liy xew donc problème yooyu moo fi nekk actuellement et que message bi ñu lancé mooy aux autorités compétentes euh, comment dirais euh, monsieur le ministre de l' enseignement supérieur Abdourahmane Diouf monsieur Maguette Sène le directeur du COUD li ñu leen ñaan mooy ENEA euh, comment dirais tous les ministres sortants aussi de l'ENEA y compris le ministre Dione et le ministre comment dirais Diba li ñu leen ñaan mooy ENEA nekkul n'importe quelle école et vu aussi la nouvelle politique du gouvernement ENEA serait un élément phare pour la réalisation du projet. donc nekkul école bu ñu war a négocier. li may li may rappelé mooy ñun trouver logement jafewul trouver logement pour 180 étudiants ENEA yi jafewul mais loolu day fekk mu nekk autorité bu am volonté bi. l'ENEA fut créé en 1963 par le feu contexte politique bi ñu nekk Sénégal tey. moom ñoom bu ñu ko amee 1963 moo taxoon mu créé école bi donc tey ENEA c'est comme si que tey la war a judduwaat. parce que contexte bi ñu ko créé woon tey la nekkaat actualité et que monde entier c'est très bien que ne tey amul dëkk mën a développé lu dul nga basé wu bi nga xamante ni tey moom la ENEA doon développé comment dire li ci dox depuis 1963 donc warul nekk école bu war a dee et que là lu ñuy gis nii depuis des années ENEA mu ngi en faillite et loolu franchement du ñu bàyyi mu jàll du ñu bàyyi mu jàll et surtout bi nga xamante jëndee nañ seen i bagage mais suñu trouver logement le plus rapidement possible et que mu nekk logement yoo xam c'est durable et équitable et comment dire adéquat aux conditions de vie d'un élève ingénieur suñu ko trouver loo ñun nous allons y rendre loger ñëw jàng parce que ñun jàng la ñu xam e servir voilà ñoo xam ne man dama dégg peut-être xamuñu mooy peut-être li may leeral ci français li may leeral ci wolof kon avant avant may jox ci pour mu def version française mooy peut-être ñun à notre niveau on s'est dit que peut-être y a e parce que lii nii lii nii c'est la énième menace boo xam mu ngi am NEA en 2022 quand nous étions dans la commune de Ndoyen et que nos camarades étaient dans d'autres communes pour réaliser des plans de développement communaux ah nous avait informé comme quoi il y a bon une société je pense certains certains ah qui comment qui agitait une partie de l'ESEA et partie bi ñu jëndoon noonu y avait même de logements yoo xam ne quatrième année fa la ñu nekkoon en train d'écrire leur mémoire mémoire yoo xamante ni ay projet lañ koy bindal ay ONG ay ministère ay entreprise mu war a servir réew mi ñu ñëw jaay suñu dëkk cest à comment dire la réaction euh, immédiate des autorités compétentes ou bien qui connaissent l'importance de l'ESEA ou bien comment dire la réaction de certains sortants de l'ESEA konoon tey ji ngeen di wax a man fii ci ginnaaw bokkatul ENEA bon euh, pour ces détails là peut qui fait la version française. face euh, face. damaa duggoon di xëppoo si toilette yi après ma génn ma génn daal di tëdd tuuti rek. benn chambre bu si da doon wax dafay dem sax moom si toilette pour tuur ndox mais finalement bu teewul dem bañ tëddee tuuti noonu ñu dégg bruit bi bañ déggee bruit bi aussi génn ñu dañoo tëdd rek parce que dañoo foogoon ne kii la noonu génnaat pour pour kii nii pour tuur ndox si gis am na benn grand bu naan ee eh, eh, eh, taxaw leen loolu la exact daa si kaw la nekkoon léegi ñu xool fi ñu gis ne dafa daanu après ñu dem si yeneen toilette yi BCPM aw ma am réaction de parce que après damaa seen BCPM boobu ñu woon si kaw fii nii di am lu ñu xool ñu duggaat tuuti tuuti si la ñuy fëggee ñu ne kii. su sant yow yaa nekk première personne bi ñu si doole tey amoo woon benn tiit mais lii mënoon na ma dal et tout ça. si si tiit laa kay. waa jëlee wu sa impression. non fekk fekk moom si biir ba ma génnee ba tuuti tuuti après si laa def. yéen nga duggoon ci toile bi. peut-être ay une heure et quelque la. du matin. parce que dafa nekk

waaw métti na torop si biti la ñu fanaan parce que école bu toll ni ENEA nekk école boo xam ne dafa former ay cadre yu bëri ci dëkk bi former fi ay ministre former si ay diplomate yu bëri ay directeur foo dem agence boo dem ay AIBD ministère boo dugg ministère yu gën a mag nag ay ministère finance foo dugg am nga fa ay ressortissants n ONG boo dem bu mag di nga fa gis ressortissant ENEA donc lii c'est une situation déplorable boo xamante ne école bi mel ni ENEA waru ko woon dund. tànk ay jigéen yéen ñëpp seen bagage nekk ci biti ngeen di fanaan ci mbedd mi ndax loolu wóor na. wóor na parce que munoo yow d'abord de kenn ki nga xamante ne da ngaa ne yow da ngay jàng xam nga nit pour nga jàng foog nga am xel bu dal. léegi yow say bagage mënul nekk si biti nga mun a jàng looloo tax raison pour laquelle tey ñun ñëpp suñu cours yi dañ koo arrêté ndax lii ndaxte amaana tey jii bu doon heure bu muy daanu dal boobu noonu mënoon naa dal si daanu dalu benn néeg mais heureusement ba douche la imaginer heure boobu kenn doon sangu fan lañ jëm donc comme lii métti na. maintenant quest seen kër yi wala da ngeen a bëgg ñu régler situation bi. non instant yi moom dañuy jël suñuy matukaay yu mat sëkk mat sëkk xeex. bu ko defee bu ñuy ñëwaat ENEA lii nii ñu bañ koo dundati situation xeex lii ba nga xamante ne lii nii dootuñ ko dundati loo lii dootu fi amati gis nga nit ñaa ngi daanu di xam nit ñi di di jooy ñun dañoo yendoo jooy sànq ba léegi dañ doon jooy dañoo jooy ba suñu nga ñuy jeex waaw dañoo ñoo fekk si moment bu métti waaw waaw ministre de l'enseignement supérieur ñun les étudiants de de l'ENEA nous nous nous t'attendons nous comptons sur vous parce que nous sommes dans une situation déplorable une école telle que l'école nationale de l'économie et d'appliquée dénommée euh, école supérieure de l'économie appliquée avec son rattachement avec l'UCAD ne, ne doit pas vivre ces situations telles quelles nous devons dépasser ce stade L'école à formé beaucoup de cadres. Donc revenez au faits. Venez au niveau de l'ENEA. Venez nous voir, nous les étudiants. L'ENEA doit dépasser une école telle que l'ENEA qui, ne peut pas, qui ne même pas faire une cérémonie de, de graduation. Ça, déjà, c'est déplorable. Une grande école dénommée ENEA qui ne peut pas faire une cérémonie de graduation, qui n'organise pas des remises de diplômes, dont les autorités compétentes qui sont des sortants ne peuvent, pas, ne peuvent même pas venir de temps à autre voir nos conditions de travail. Les écoles telles que l'ENA, telles que l'ESP, telles que EPT ne valent pas mieux que l'ENEA. Donc, donc, donc, donc il, faut, il nous faut Il vous faut revoir la situation des étudiants de l'ENEA et prendre vos mesures, vos dispositions. Nous en avons besoin. Nous, la seule motivation qui compte, c'est de pouvoir réussir à aider nos parents. C'est la raison pour laquelle nous, nous avons fait ce concours, nous nous, avons fait, nous nous sommes battus ardemment pour pouvoir réussir notre place au niveau de l'ENEA. Donc on n'attend pas ça de l'école, on attend des études, de compétence on attend des études vraiment innovées, des études qui répondent aux normes international comme national. Nous, c'est ce que nous attendons de l'ENEA, être dans de bonnes conditions pour pouvoir demain être des diplomates, des grandes cadres de ce pays. Nous le waaw si dañoo am problème restauration yenn saa yi kenn xamul lan lay def da ngay dem resto yenn saa doo xam nan rupture day bëri dara doo ko lekk lu nekk bâtiment yi gis nga lépp waaw ENEA depuis que ENEA et ENEA daanu ñëwoon loger si Sifalco A3 léegi A3 la ñuy loger bâtiment yi A4 la ñuy loger lu ma si gën a naqari daaw dañ ñoo génnee ba ba événement yi xewee ñu ne ñu soo leen ñëw di ngeen fekk école bi pare ñu ñëw fekk fi dara defaruñu ko vraiment c'est une situation déplorable une école telle que l'ENEA ne ne ne vaut pas ça bi tamit seetaat nañu vraiment parce que lii nii su amee ñoom war na nañoo ñëw taxaw. au moins ñu def déplacement xool parce que ay nit soo leen yoree surtout ay nit yi dana yor avenir dëkk bi nous ne sommes pas n'importe qui de demain vous nous dans de grandes télévisions c'est moi qui vous le dis demain nous serons de très grandes autorités donc des autorités kii aspirent à devenir de grandes autorités ne méritent pas ces genres de conditions nous méritons mieux Nous méritons d'être bien traités, d'avoir des cours qui sont innovés. Quand je parle des cours innovés, qu'on puisse revoir vraiment le calendrier des études de l'ENEA. E quand quand on commence les cours au mois de janvier, même si on va les terminer en décembre, mais au moins que ça puisse être un calendrier vraiment qui sera bien, bien structuré, de telle sorte que les étudiants n'auront pas de peine à se fournir. c'est très dur, c'est très compliqué la situation que nous sommes en de vivre. Donc encore une fois, chères autorités, nous vous appelons, nous crions. Ce sont des cris de cœur que nous vous lançons. Nous, les étudiants de l'ENEA, nous les étudiants de l'ex-ENEA, nous avons besoin de votre accompagnement, de votre soutien, vraiment pour pouvoir persévérer dans nos études. Parce que c'est seule la clé de voûte de notre réussite que nous espérons pour aider nos parents